naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruhu wa nastahdiihi wa natuubu ilayhi wa nacuudu billahi min shuruuri anfusinaa wa min sayyi'aati acmaalinaa innahu man yahdihi llaahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan wa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaxa risalata wa addal amaana wa nasaxa al umma wa jahada fi llahi xaqa jihaadihi xata ataahu lyaqin allahuma fa salli wa sallim warxam wa baarik alayhi wa ala alihi wa asxaabihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi maa arcada arracdu walwarqaau tanhibu min hadiliha wa jara damcun min alqalami amma baadu mushahiduuna alkiram li talfazati set tv atalfaza allati tushbihuna wa tajmauna fi kulli makanin uxayikum bi taxiyati al islam al mubarakati wa hiya asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi set tv télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale ginnaaw bi ñu sante yàlla tabaraka wa taala julli ci mawlaana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam ak ci jëmmam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaye di beral nuyoo sunu njaati gi muy soxna Maymuna Ndour fay waaye di ko massawu waaye di métitlu di naqarlu ah ndogal bu tiis boobu nga xamante ne dal na ci kawam muy ab sàmba booy boo xamante ne bàyyi na ko ba mu wàcc mu tëru ko buntu këram jamat ko ay paaka jël alalam kooku day la mu def ñu ngi koy métitlu ñi ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàll na ci soxna si doxe ay mbiram yëkkatiku ba faw te mu bañ a doon ak wàññeekoom yal na ci set TV jóge jóg ca kaw ba tiim télé yépp ka nga xamante ne moo ko def bu fekkente ne ak ñàkk moo tax yàlla na yàlla may ko ba dootu ko def bu fekkee ak jikko ju bon moo tax mu def ko yàlla na yàlla defar jikkoom ba mu bokk ci euh, euh, euh, saalixiine yi nit ñu baax ñi te it nag aa ah, ñi ngi sàkku nag ci sunu réew ñu taxaw ci mbir yu mel noonu wutal ko pexe ngir loolu jóge fi ndax loola jaaduwul loola warul loola rafetul soxna Maymuna ñu ngi lay ma saw waaye ñu ngi bokk ak yow tiis wi tey ñaan yàlla mu yóbbu saw ay ak sa ayu njaboot te yëkkati la ba faw ci zahir ak ci baatin mbokk yi dellusi nañu ak sunu émission eh, tafsirul quranul karim te mooy jéem a nab nabi jéem a leeral wala nga ne tekki waxu yàlla subhaanahu wa taala bi nga xamante ne ci araab la ko wàccee ñu jéem ko leeral ci làkk bi nga xamante ne moom la ñuy làkk muy làkk wolof sunu kemt lay kàttan xam ngeen ne démb ñi ngi taxawoon ak yéen ci euh, di li ñuy wax ad duxulu fil maddati entrée en matière te mooy ñi ngi doon wax saar wi nga xamante ne moom la ñu fas yéene tàmbalee ren muy suratul aaraaf aaraaf nag di bërëb boo xamante ne ah ca diggante aljana ak sawara la nekk yàlla wax na ne bu ñu wëlbati koo xool ndeyjoor gis aljana ndeysaan ak xéewal ya ak keppaar ga ak ndengamaam na mu a tëxee ña ca nekk di di di di noos di ndaataatalax ñu ay yàlla yàlla yàlla wàcce ñu fii wàcce ñu ci montagne bi ñu nekk ne fi copp nii wàcce ñu fii ci ñi ñu dem ci xéewal yële waaye bu ñu wëlbatikoo càmmoñ gis safara ak mbugal ya ak ceen ya ak tàngoor wa ak yuuxu ya ak ak ak métit ya fa nekk ñu ne woo yàlla bu ñu woo woo wow fii moom yàlla bu ñu fi yóbbu mukk fii moom yàlla bu ñu fi duñ ko sax nangoo xool duñ ko sax nangoo xool loolu mooy al araaf saar wii nag bërëb boobee la ko yàlla subhaanahu wa taala tuddee suratul aaraaf nag bokkoon na ci saar yi gën a gudd eh, ci alquranul karim ci saar yi nga xamante ne màkka lañ wàccee eh, nag bokk na ci saar yi nga xamante ne ñoo njëkk wax ci façon bu détaillé wu yenent yi di nettali yonent yàlla sàngam nangam nangam yonent yàlla sàngam nangam nangam bokk na ci saar yi njëkk traité boobu sujet li nga xamante ne moo ko tax a jóg rek nag mooy li tax a jóg nag mbooleem saade màkk yi te mooy saxal euh, woote jëme ci islaam ak wéetal yàlla subhaanahu wa taala xam ngeen ne màkk la fa yonent bi salaay salaam di nekk fukki at ak ñett yim fa nekk yëpp euh, saar yi fa wàcc daanaka saar yi li mu doon jàngale mooy rek woote jëme ci l'islaam pour nit ñi convertiru en islam maanaam tuub bàyyi jaamu xërëm yi ñu nekkee woon ak bokkaale gi euh, dugg ci diine lislaam ak it wéetal yàlla ñu xam ne yàlla kat nag benn rek la waaye du ñaar du ñett du ñeent ndax ñoom kat amoon nañu lu ëpp ñetti téeméeri yàlla te biir Kaaba ga waaw waaw waa amoon nañ fa lu ëpp trois cent jë <laughs> subhanallah ah yàllaay njóobeen yaa nga nale yàllaay njaayeen yaa nga nale ah nga xool ko dégg nga maam loxo yi ne nii mun siiñ mu siiñ fan ñu ne kooku mooy yàllay yàllay sekkeen yi ah bi yàlla bët yaa nga xóot ndeysaan nopp yenn fewu fewaaral ñu ne yàlla njaween yaa nga nele ah yàllay njaayeen yi yàllay eh, dégg nga maam ñu sant jaxate yàlla ñu sant eh, ku famille bu nekk ak yàllaam yàllay Euh, commerce bàng nga le bu ñuy defi commerce ci kële la ñuy dem kële la ñuy ñaani kooku rek mooy lijjanti mbiru commerce bi yàllay xare baa nga le bu fekkee ci guerre la ñu jëm yàlla ji la ñuy ñaan yàllaay taw baa nga ne bu fekkee dañoo dañoo maral bëgg a baaw naan ci yàlla jële la ñuy dem ba muy trois cent soixante yàlla <laughs> subhanallah seetet ko moo tax comme boobu pas-pas moo nekkoon ci ñoom loolu la ñu gëmoon loolu la gëmoon yàlla bi mu yónnee yonent bi salaay salaam treize yu njëkk yi ci loolu rek la doon liggéey pour dindi loolu ci ci seen gëm-gëm yooyu ñu xam ne yàlla du ñaar du ñett ah qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad yàlla kenn rek la yàlla kenn rek la du ñaar law kaana fihima ilahayni isnayni la fasadata yàlla nee na asamaan ak suuf bu amoon ñaari yàlla yoo xam ne ay rival lañu kenn ku ci nekk di concurrence ak morom dinaa la wan ne gënuloo maa nekk yàlla ah, kii naan ko ah non non attention man aussi du ma la bàyyi sama nee na kon asamaan ak suuf day jékki-jékki ñaari yàlla yi di guerre ba asamaan ak suuf yëpp yàqu. ku weddi rek dangay misaal mi danga koy jël rek ci Israël ak Palestine li yàlla bind yahud moo ci gën dëgër bopp waaye li yàlla bind arab moo ci gën a dëgër bopp ñoom ñaar ñëpp kenn du bàyyi ñuy xëccoo benn bërëb moo tax loo loo gis ci xitaaw Gaza ah? ñaata bakkeen ñoo fa dee pourquoi parce que dafa am ñuy xëcc ci côté bi am ñuy xëcc ci côté bi te kenn bëggul a bàyyi bu ñaari yàlla amoon di nga dégg ne ñaari yàlla yi geer nañu te bu ñu geeree asamaan ak suuf dana yàqu parce que benn yàlla bi dina xëy bés ne tey damaa bëgg a taw tey damay taw ndakaaru beneen yàlla bi ne ko programmé wu ma foofu tey Casamance laa programmé yàlla ji ñu ne ko ndakaaru laa bëgg a taw mu ne ko doo fa taw fële ngay taw ñaari yàlla yi guerre ndax da ngeen fee mës a dégg asa tuyu tuyu ci kaw asamaan doo ko mës a dégg pourquoi parce que in huwa illa ilahun wahidun kenn rek moo fi nekk moo yàlla subhanahu wa taala loolu pas-pas boobu la yonent bi doon jàngal nit ñi ci ñi nga xamante ne ñoom la ko yàlla yàlla yónni ci nit ñi ak jinne yi pendant treize ans yi nga xam ne moom la def ca makkatul mukarrama ak di leen xamal ne bu ñu deewee dinañu dekki génn ci bàmmeel yi euh, ak di xamal ne wax yu gii nga xamante ne moom mooy wàcc ci kawam dëgg la moom du waxi boppam jibril alayhi salaatu wasalaam la yàlla di yónni jox ko li mu koy jox mu ñëw wàcc ko ci moom moom mu jottali waaye du ay waxam <coughs> ba tey saar wi dina gaaral ci tàmbale wi euh, mujiza yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne lu sax la mooy kaawteefu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que yontu yàlla muhammad li mu am ci ay kéemtaan kenn xamul nu mu toll Seydi El Hadji Malick nee na fal mujizaatu lahu tiadaaduha abasun mithaarul misaari lam tudrak wa lam tusami Seydi El Hadji Malick nee na nekk fi nag ne da ngaa bëgg lim kaawtéef kéemtaan yi yàlla defoon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu fontu la rek font la rek yow mi taxaw ne da ngaa bëgg kaawteef yonent bi yëpp nga lim ko eh, eh, Sidil Haaji Malik nee na loolu am po la yow da ngay fo rek ah mi'saarul mi'saari boo ko ma maanaam bu doon fukk bu doon fukk nga jël fukkeel ba benn ñaar ñett ñeent ba juróom-ñeent yi nga tege ko ne jël fukkeel ba xaaj ko moom it fukki yoon benn ba nga ne danga koy wax ci ñu mujjizaatu yonent bi salaay salaam doo ko mën a doo ko mën a matal te it nag doo ko mën a wax waaye nag bokk na nag ci kéemtaanam yi gën a rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquranul karim saar wi dina la wan loolu ca commencement ba euh, te it saar wi dina la yëgal ne alquran ji xéewalu yàlla la goo xamante ne yàlla moo ko wàccee ci euh, mbindaafoon yi maanaam surtout rawatina nit ñi ak jinne yi mboole seen ñu war a jàpp nag mooy ba mu dëgër ci orientation yi nga xamante ne alquran moo ñu koy jox ak directive yi nga xamante ne moom lay bëgguñu jëm ca loolu day buñ ko defee rek danañu mucc ci àdduna waaye danañu mucc ci àllaaxira gis nga enseignement alquranul bu buñ ko toppee li sëñ Mansour daan wax naan bien fii bien fële alquran boo ko toppee ak njàngale yonent bi fii ngay balaa ngay balaa nga naan aljana ak fii xaay ba ak nee xaay ba fii ngay jëkk a bien wee soog a bien fële gis nga ah, ah, boo boo bàyyee alquran toppuloo ko bàyyiwuloo yi mu lay tere enseignement bi alquran di jàngal nanguwuloo ko topp eh, tu seras malheureux dans ce bas et dans l'au-delà alkare gi ak yàqu gi ak musiba gi ak coono yi fii lay commencé avant ngay yegg alaxira wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama fa yaqulu rabbi lima xashartani ama wa qad basiran qaala kadalika atatka ayatuna fa nasitaha fa kadalika alyawma tunsa waaw yàlla subhaanahu nee na képp koo xamante ne li yàlla santaane ci alquraanam ji wàcce ci yonent bi daf koo dumbooyu faalewu ko bu dee lu ñu war a def du mu ne defuma ko bu dee lu ñu war a bàyyi mu ne bàyyiwu ko yàlla nee na dund gu xat gu naqari gu tiis ngay dund fii ci àdduna bi waaw loolu koy leer na nañ da ngay dajeeg jullit bu amul dépense amagul dépense dépense su añ nga ne ko noo def mu daal di la tàpp ci boppam alhamdulillah sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi na nga def di ree nga gis xar kanam ji ni mu ree ni mu leere nga yaakaar ne kii xanaa amul benn problème fekk amagul dépense añ gëm yàlla gi rek moo moo fees ci xolam moo tax mu accepte lépp lu yàlla teg ci moom waaye nga gis ab milliardaire boo xam ne foog ko fekk day fuuñ fuuñee ko foox fooxi ba ci yàgg sax mu faf xaru rey boppam pourquoi parce que am na ay problème yoo xamante ni nee na jaratul muy dudd ci kaw suuf mu ne tipp rey boppam ak alal ji mu am yëpp ci àdduna bi lu tax mu def ko dafa gëmut yàlla wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan yàlla nee na sama alquran ji ku ko wan ginnaaw dund gu xat gu naqari ngay dund wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama yàlla nee na bu bés péncee ñi nga xamante ne nanguwuñu woon a topp ci alquran ji bu ñuy génn ci seeni bàmmeel dañuy gumba selmaxa de talaxlaxee de de de de làmbaatu du ñu gis fu ñuy teg seen tànk mu ne waaw yàlla li ma xasartani ama waxat kuntu basiran yàlla man de dama daan gis ba ma nekkee ci àdduna nga indi ma fi ci àllaaxira def ma fi silmaxa yàlla loolu lu ko waral mu ne ko wa kazalika atatka ayatuna fanasitaha ah sama aaya yi alquran ji li la war a orienté ba ba bu ëllëgee boo ñëwee fii nga am ak leer xam fi ngay teg sa tànk muy alquran ba ma ko wàccee ci yow danga ko koo dumbooyu woon faalewuloo ko woon toppuloo ko woon ñàkk topp googu nga ko ñàkkoon a topp moo tax tey nga gumba saar wi dina la euh, am lu mu la mosal aussi ci mbir moomale ah waaw dafa mel ne Euh, techniciens yi nekk ci régie bi muy euh, euh, Cheikh Ahmed Bamba Traoré ak Ousseynou Diagne xale yi naan ko wëz ah, gis naa fi léegi Mouhamad Ndour ñoo ñoo nekk ci xarale gi ba ngeen di gis suñu jëmm di dégg suñu kàddu fa tabaarakallaahu ñu ngi may signaler ne li ñu amoon ci waxtu jeex na waaye nag lu jiw wa jeexul jógu fa incha allahu taala ëllëg ak jàmm danañ dellu siwaat ak yéen ci bopp saar wi nga xamante ne moom la ñu fas yéene tàmbalee muy suratul aaraaf di saar woo xam ne màkka la wàccoon euh, nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom benn euh, fa tabaarakallah incha allahu taala kon nag euh, xam naa rek dañuy teg foofu sunu baaraam te jox leen rek dox daje ba ëllëg ak jàmm ci waxtu wi ñu dellu siwaat ak yéen ci seen tafsiru quran ngeen di ci ànd ak seen mbokk al imam Mouhamadou Lamine Guèye xaadimul islaami mindaanu islaam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil aalamiin.